mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalib yi ngi leen nuyu di leen siyaara te di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi nga xam ne moom lañu fii ci Touba Kër Ñang di yàlla ak taalib yi ah, di ko def ci ndigalu sëriñ Mahamadul Murtada mi nga xam ne moo fi toogal maam Modou Xaali moom maam xaadima jaxate kala radiallahu taala anhuma ak mbokkam mu baax ma sëñ mbay jaxate ah yàlla mi yàlla mi mi mi dogal ci dogalam ak mbaaxam ate woon na bis bii nga xam ne moom lañ toog di ko def tey jii mu nekkoon ci ndigalu sëriñ misbaaxu jaxate du sunu waajur mu di ko defal waajuroom wa ginnaaw ba mu fi bàyyi ko di ko ñaanale fi barsaq mahamadiya ba yàlla dogal lool di law ba suñ jonni tey jii mu àndoon ko rakkam ya sëriñ abo ak baay baay mahamadul basir jaxate ba ñoom ñëpp ñu wujj suñu borom subhanahu wa loolu di wéy di law ba ci loxo yi suñu waajur wi di sëñ mahamadul mortada loolu moo dellu siwaat ñu di ko defal fii ci Touba Kër ànd ko gilt yàlla yi ànd ko taalibe yi yëpp ak mbokk yi nga xam ni ñëpp euh, mooy mbokk akrab yi mooy mbokk dareet yeeg ñëpp rek incha allah kon ñu jokk ay kàddu rek ci euh, ku baax ki jàkkaarloo ngeen ngir euh, am ñoom ci laaj incha allah. jërëjëf mbàkk mi euh, li nga laaj lu am solo la waaw daayira bi de dalilul mbir mi mooy ñaan la goo xam ne suñu waajuroo Mouhamadul Misbah moo ko doon ñaanal waajuram ca njëlbeen nga mu muy cosaan lu sew a sew cosaan lu sew la mooy da doon def saa su àpp ba ñëwee rek mu def kaamil def ay laax. maanaam ñaanal waajuram ngir suñ boroom yokk ay darajaam yokk ay maqaamaam loole moo waral maanaam mu defoon ko ci bis bi at mu jot moo koy def noone waaye lu baax mooy li nga xam saa su ñëwee bu at ba bis ba dat ba waatee day gën a yokk di gën a fawxa muy dem ba ba ëpp ay loxoom moom ci boppam moom mi ko doon def mooy mooy suñu waajur baay mis baaxu dem ba ëpp loxoom mu ànd ko rakkam yëpp ñu koy def di ko def ba mujj ñi nga xam ñoo ak njabootam boobu ay tuut tànk lañu waaye dem na ba ba yàlla mi dara tawul dem ñu dem ba màgg bin màggee nag ànd moom liggéey boobee bin ànd moom liggéey boobee ñuy dem ay ati at ñu dem ba am ci ndigalam moom Baye Miss Baaxu Jaxate mis ndigal lu toll ne maanaam mu jël mbir mi teg ko ci suñu loxo moom ay ñi nga xam ñooy sët yi ñun sët yi ñoo def ñoo àndandoo nag tag ko wenn say maanaam def benn daaira boo xam danoo àgg jébbal ko ko sàkkal ko tur maanaam mu mu mu jox ñu ndigal ñu ànd ak moom ci liggéey bi saa su app ba dikkee ah suñu dooleeg suñu ñaq ak suñu xam-xam lépp ñu def ko ca ngir bis ba mën a taxaw ba agsi fii mu agsi tey kon loolee mu ndigal loolu lañ ci am daayira bi nag jamono ji sët yi doole sët yi ñoo cëpp doole ndax doom yaa ngi fi sax nag waaye ginnaaw bi doom yi nekkee sët yi ñoo cëpp doole ndax lu ci ëpp lu ñuy taxawal dañ ko def daayira boo xam ne maanaam at ba at lay doon kenn ku ne am na sas wu la rëddal boo xam ne sasoo bu ñëwee da koy bay bay googee nag dafay law ba ci sët bu bàyyi ko moo xam sëtu bu bàyyi ko ci góor la moo xam sët bu bàyyi ko ci jigéen la waaye ñoom ñëpp ci lañ doon du caage ko sant jaxaate rek lay doon waaye foo sëtoo ak noo ci sëtoo rek yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir maanaam maanaam daayira bi kon daayira boobu noonu lay doxee at mu jot ñu koy doxal at mu jot ñu koy doxal saa su ba app bi dikkee la nga xam ne doon na ko doxal di koy doxal ba ba app ba ñëw maanaam loola la ñuy dajale fas yéene ko taxawal ci bis bi lu ñu ci am incha allah def ko ak lu julli yàlla def ak ñu bëgg lu baax lépp ñu àndandoo di ko màggal ba ba suñu jon tey ji daayira bi nag ni muy doxee mooy maanaam jamono yi buñ ko nasee ba buñ demee ba nga xam def nañ ko tey jii bu subaa buñ demee Xuru Mbàkke buñ ñëw buñ ñibbaas ci kër dañuy toog def benn réunion réunion boo xam réunion bu yaatu lay doon danañ fa tënk li ñu a li ñu war a jëmee déwén incha allah buñ ko fa tënkee dañuy demaat ba dugg ca ba ñetteelu weer ba ni xam mooy tee bis mooy tee bis bi agsi ñu soo commencé nag di def maanaam maanaam maanaam ay réunion maanaam maam diggante réunion yi daal ak bés bi maanaam du paax ñetti weer wala ñeenti weer yoo xam ne chaque dinañ ci jàmm benn bis maanaam chaque samedi dinañ kër kenn ñu toog fa waxtaan ñi andi seen i xéwal andi seen i xéwal ba ba ba timisee ñu ñu ñu di ko def ba keroog bis bi di ñëw bu bis bi di kaatee tamit ñu kon na waan waaye du caagen ne saa bis bi dañuy def par chaque chaque yi waaye nag di ñetti weer wi bëgg a ñëwee moom maam bis bu ne chaque samedi ci weer wi maam samedi bu jot incha allah dina daje kër kenn maam waxtaan fa am ne kër baay Misbah lañ koy njëkkee fa lañ koy ubbee foofu lañ koy tëjee tamit incha allah taala loolu daal mooy li nga xam ne maanaam moom noonu lay doxee incha allah. loolu moom euh, dañuy wax ne wax dëgg yàlla mbir la moo xam mbir mu ubbi ko la euh, euh, ku bëgg lu baax ku ne foo yaakaar lu baax baa nga gis ko war nga caa dem baa nga bëgg loolee du caagante ci sët la ndax kon loolu kon loolu day day mel dañ koy bëgg a xatal te mu yaatu la dañuy wax ne fu sët sëtoo bu ñu waxoon ne sët dañ naan kon ku sant jaxate déedéet waaye nag képp koo xam ne jultub yàlla nga tamit te bëgg lu baax tam sa xemmante ndax ca loolee na la wér na loolee ubbi na la bunt boo xam ne mën ngaa ñëw bokk ca loolee ndax lu baax rek la waaw loolu de mooy ñu delloo suñu bopp ci sëriñ bi te delloo suñu euh, gën a fetlu suñu taalibe te tego ci li nax siraatal mustaqim ndax loolee rek mooy li nga xamante ni moom ndax borom bis bii nga xam ne moom la ñuy defal li tey lu bu fekkonte ne mbirum adduna la ñuy làmb kenn du ko ci daj ndax loolu yàlla ak yonent bi sëriñ bi ak ak ak yaakaaram ji ak ak magam ju baax ñi mooy sëriñ bay jaxate dara ñurukoon loolu nga xam ne adduna moom dafa tegoon ci ginnaaw loxoom bii na ko waajuram defe woon ak na ko magam yu baaxee defoon na leen Sëriñ Tuubaa yare woon ci loore la nekkoon kon dëgg bu fekkoon na adduna la ñuy wut baa lenn jeex nañ ko ci adduna kon adduna kenn kenn du leen fi ëppale ba ba ba ba ba ki lu mbirum adduna danañ ci danañ ci boole waaye nëbb seen bopp ak suul seen bopp dañuy nag defaru yàlla ak suñu borom subhaana taala ak liggéeyal nit ku baax maam sa mbir loo ko suul suul du tax mu suul loolee nag ma waral lii di di feeñ as lëf ci mbiram waaye na la wér na maanaam du loolu loo xam taxoon a jóg wala loo xam ne dañ ko koy defal mu ngir ngir muy ne ci àdduna di maanaam ñu ñëpp di ci teg bët kon loolee war nañ cee roy lu baree bare noo roy suñu bopp ci taalibe waaye teg ci yoon siraatal te jaamu yàlla te bañ a boole dara ak yàlla subhanahu wa taala te gëm sëriñ bi bañ koo bañ ko bañ koo caaxaane te xam ne sëriñ bi li mu am ay caaxaan mayu ko kon ñun ñi ay taalibe noo tegu ci yoon woo xam ne nii maanaam sëriñ Tuubaa ñu danoo amul wenn lay suñu diggante moom ndax dafa bind bàyyi fi wax wax ñuy dégg mu jëf ñuy ñu ñu gis kon loolee amuñu lay suñu diggante moom lañu war nag mooy tege fa mag ñi tege woon mooy toppi ndigal bàyyi ay tere te yi nga xam ne mooy ay poñoxati àdduna la nga xam ne leeral na ay ay ay mu baasar yoo xam ne amul benn njariñ ñu ñu teg ko ne te xam ne dëgg rek mooy mooy mooy lu wér euh, tawet na jataay yu mel nii tamit nga xam ne lu bare ba da ci soq ko yu bare ba da ci da ci da ci ba day mujj na yàlla mi taxoon nga ko jëf sax day mel ne yàlla leeru ci ay ab sirom téye ko bàyyi la mbirum adduna kon ñu bàyyi xel lu ñu mën a def nañ ci jiital yàlla suñu borom subhanahu wa taala rawatina maanaam ñu def lépp taxzimahu bi zonnati ndax loolu rek mooy li am solo waaye leneen lu mu a doon rek ay ay ay ay lay doon te loolu daanaka taxul a mag ñi jóg kon war noo tege fi ñu war a tege te xam ne jaamu yàlla moo ñu fi indi waaye topp ndigal moytu ay tere baa ñu bakko sax moo ñu fi indi kon loolu na xam moo nu war képp ku ab julit moo la war rawatina nga ab tal du too sëriñ sëriñ moom képp kuy tuddoo ay mbiram ku la na jàkk war naa xam ne lii ci sëriñ bi la bàyyi ko waaye lenn loo xam lu ñuy xeb la ba loo xam dañ ci teg baaraam naan accam loo ab jaam war na koo jomb sakka sakka ab taalibe kon kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax baax rawat na ñun ñi nga xam ñoo ay tuut tànk nga xam ne ñun la mag ñi yaakaar ëllëg te fa mag nekkoon lan fa lan doon def itam ñun lañ ci yaakaar te ñoo ko war a yóbbu ba fa ñoom fan ko bëggee kon ñu war noo am fu ñu tege war noo am melokaanu mel war noo tego ci fi ñu war a tege te jàng suñu diina jàng suñu sariya te téere bi yàlla bi ñu fonk ko baax a baax te loolu rek mooy mooy li njëkk te mooy li macha allah taala jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu